muy suñu papa suñu xarit muy papa Lirou Diagne monument Guédiawaye ñoo ngi koy bëggee waat bu baax baax di bëggee ñu fi daje ñëpp su mel ne suñu papa Aliou Seye de xam nga ñoom gàpp de Samba Laobé Tariba Cheikh mbëru Guédiawaye yëpp ñoom Marley Pape Thiam waaw gars yëpp daje nañ ci tey. Lirou Diane nee na bit bi a euh, waaw dëgg la ndax Lac de Guiers ku nga xam xam ko si ñun xam ko géej waaye xam ko àdduna tey yàlla nattu ko. xam moom si lu mu nekk ñoo ngi koy ñaanal ñoo ngi koy ñaanal baax fee nga fa la nekk yàlla na ko fa yàlla génnee mu dellu si waat suñu loxo di wax waa géej waaye nañ ko jàppale kilifa nekk géej waaye nañ ko jàppale bu baax. waaw ñëpp nag bu mu nekk kilifa nag bàyyiwuma kenn képp koo xam ne borom doole nga ñu lay tudd géejuwaay nañ taxaw Lac de Guiers ndax ñun Lac de Guiers mooy suñu gànnaaw mooy suñu lépp waaw dañuy xelal di ñu conseil kon kay ñoo ngi koy ñaanal fee mu nekk yàlla fa yàlla yàlla ko fa yàlla génnee waaw at ñu fa nekk ñëpp yàlla leen yàlla jëlee waaw. jàpp nga ni Lac nga xamante ni mooy en activité. làmb ji mooy comme ñu wax rek gars war nañ ci mën a jàpp. ndax ku xam la dëggeer xam ko si mbëru VIP mbëri mag yi kon na ko gars yi gëstuwaat mbëri mag yi jàppalante seen biir xam nga ñu jàppale ko la mën a delluwaat suñu loxo. arrestation bi euh, ban jàngat ban yan en tant que mbër. waaw day tax ñu gën a xamaat suñu bopp rek gën a xam ni ñuy toogee gën a xam ni fi ñuy jëm waaw ndax yoon ndaw du gaaw mais comme que am na am lu ñuy xaw a gis rek ñaan yàlla. yàlla nañ si yàlla suturaal ñu bañ faa am ëllëg xam nga di ñaan laal jàmm ak salaam rek. nga jógee si Talfa sa combat Pokola précipité par les amateurs. waaw Pokola la mbër la bu ñu làmb boole dinañ bëri incha allahu rabbi bis bu ñu làmb boole. actuellement làmb boole wu leen. non ba tey mën nañoo boole mën nañoo ren mën nañoo bëri déwén ça dépend rek hmm. waaw. ça dépend dañoo gën gisoon benn affiche boo xamante ni euh, Albourakh Events Youssou Ndour mu nekkoon. waaw waa Alboura maa ngi nuyu bu baax su mel ni sama papa suñu xarit muy Aziz Ndiaye ak Baye Ndiaye ak raqa bi ñoom Masata xam nga ñoom Kor Ndiaye gars ñoo leen di bëgg waa Alboura bi Pokola bu ñu waree bëre rek dinañ bëre tamit taxul woon mais gars yi taxawal dañu déggoo ñu taxaw na ñu ne taxawul ma a def sori nag combat bi taxawul waaw ndax combat tànk jotoo avance combat taxawul waaw. comme ma ko jotoo avance combat bi taxawul léegi ba ñu ma woowee na ma sa combat yat Pokola taxaw ma leen taxawul ndax man jotuma avance. xam mais bu waree taxaw rek ñu war a bëri rek dinañ bëri si man daal mooy li ma wax. la nga bëgg lu moo tax nga rejeté 10 millions ci sa combat ak Pokola wala sa valeur marchande dafa dépassé loolu wala. non demewul noonu sax yow xam man làmb laa bëgg. Hmm. tamit làmb laay suivre. Hmm. sama combat mat Pokola. buñ bëree ren dinañ bëri déwén incha allah. ñàkk bëre ren bi kase bi moo ndaw wala lan la lu tax bërewuñ ko ren parce que sénégalais yëpp ren lañ ko bëggoon bëgg ngeen bëri ko yi moo ndaw wala. non 10 millions ndawul 10 millions xaalis la. da da mais kan mën nañ maa fay 10 millions ma delloo ko. waaw ah, loolu ah non. mais reetaan nga de. mais man daal man da ko wax rek nga de. man li ma bëgg combat pour mu dañ ma ko jox ma bëre Pokola. ba bu doon léegi léegi pare naa mais nañ ma fay nga xool. kon fayuñ la xaalis quoi ah, xaalis moo tax combat bi taxawul sa diggante ak Pokola waaw sama diggante Pokola bu ñu fayee rek ndax sama bab liiru loolu ma day bu ñu fayee rek ba bëree moom waaw man adversaire yi ma bëgg su mel man laamu kenn waruma bañ Zarko waruma bañ Tonks waruma bañ ah Diène sax saako yi la nekk mais waruma bañ jam teer yi ah jam teer yi ah, jam góor soog man moom làmb nee na mais jam teer man moom ay <laughs> ay waay lañ. mais moo tax nga bëgg a daw jëm téeri. soq waaw soq tamit man moom làmb neex la. jëm téeri daaw moo ko de. Ah. dafa nekk suñu mbokk mu dëkk mu nekk. ñoom ba fan la nekk ci sa <laughs> bàjjen mooy baay non non non waaw. Eh. sa doom bàjjen la doomu bàjjen la moo tax moo tax jël. sama doomu bàjjen non damay wax rek su ma ko jox avance ma jël ko de. waaw eh. ah, damay mbalak nii rek mais man bàyyi ma kenn jëm téeri dem ba si yam damay gis gars yi di wax rek moo daan bu kees tamit su ma xamee yóbbu ngéwél waaw. Eh, gis euh, taxawal couronne des diggante Balla Gaye euh, nga xamante ni mooy mais Père Aziz daa wax bëgg-bëggam rek àdduna ku nekk am nga sa bëgg-bëgg wax ko mais ñëpp xam nañu Modou Lo mooy roi des arènes ñëpp xam nañ ko mais tamit moom da doon xool lu làmb doxalee kanam rek. mais mu koy wax waxee ko ngir dara dafa wax ngir ngir làmb mais waxee wu ko dara ndax Aziz Ndiaye kuy defar làmb du yàq làmb ba tey moo ngi defar làmb du jël ay millions di ko jox ay raqam ñuy tëgg làmb kon mu amee lu mu wax dañ ko jàpp ni nit bëgg-bëggam daa bëggoon làmb gën a kawe waaw mais comme ko wax na erreur tamit ñun. duñ ko wax dara. da nga loolu dama jàpp erreur la ndax ñëpp xam nañu Modou Lo mooy roi ndax gars yi loolu lañ wax. Hmm. ndax ñooy naan li mu wax waru ko wax nii nii nii ndax Modou Lo mooy roi des arènes loolu bit la fanaan. alors ñu jàpp ne que Assane daf ko wax uniquement pour que tuutal ki nga xamante ni moo di Modou Lo wala couronne bi mu yor yéene ko Balla Gaye la ko yéene lan ngay wax ci loolu. waaw mooy li ma la wax rek ay Ndiaye ba Modou jël couronne bi yëpp dañ ñu jàppale ne Modou Lo mu jël kuran bi kon mënu ko soxor ndax Modou Lo lu muy am yàlla moo ko xëy may yaa ngi dégg kon daa waxoon xalaatam bëggoon làmb ji gën a neex làmbam gën a dox man mu waxee noonu mais du leneen. mais est-ce que loolu am conséquence ci titre roi des arènes. non non mais comme que gars yi teel la nga xam wax nañ ci ñii wax wax nañ ci ñii kaas kaas nañ ci kon daanaka jeex na amatul leneen lu ñuy wax. non jeexagul de. la moo jeexagul. parce que est-ce que tamit jotul jotul moment bi ñu toll maanaam ñu formaliser titre roi des arènes comme bu ñu nee Manga 2 moom moo nekk rek roi des arènes boo xamante ni si mën nañ ko reconnaître ci CNG est-ce que moment bi jotul tamit ñu formaliser ko teg ko ci équipe ba ku nekk roi des arènes du am benn jiix jaax mais gars yi bu ñu waxee loolu waruñu wax loolu ndax yii ni toog na 15 ans daanuwul Manga sax amaana na suñu papa yi moom Alioune Seye daan na ko si kon yii ni def ñaari at daanuwul Balla Gaye ñëw daan ko da koy xool si sport am ñoo xam ne tey jii boo daanee koo xam ne moo la kii kooku yaay ne champion kon roi des ba tey Mourlo moo ko yor Mourlo mooy roi des arènes ko yore ñun ñëpp dañ cee xam ne mooy roi des arènes ndax si kii la ko jëlee woon kon buñ ko buñ soxoree kenn kenn soxorewul kenn mais Mourlo mooy roi des moo war a nekk taxawaayu CNG pour formaliser formaliser le titre roi. waaw instant jàpp ni Mourlo mais Mourlo ñaata la te Modou Lo mën na ko téye bàyyi bëre. non pour roi des arènes dina am beneen plus-value. parce que gis nañ gën gën ko gëdal gis nañ titre empereur. léegi roi des arènes da ngeen jàpp dafa yomb lu ngeen gars yi amee. Ah, parce que ku daan ruwaare yow yaay yow yaay ruwaare rek loolu noonu dafa xaw a yomb de man war nañoo mën a tey yeneen critères yoo xamante ne si ci bi ñu jàpp bokk pour que mu gën a nekk loo xamante ne si lu ci base yu solide lay doon. léegi Manga kan la daanoon ba jël loolu si moom. waaw Manga ay temps dafa yàgg. ah par exemple par exemple gis nañ couronne des empereurs ñu lay fay chaque mois ba keroog nga ko fay jëlee. waa des est-ce que am na loolu am na sponsor. waaw amul loolu mais comme tey jii xam nga loolu si commencement bi la woon. mais léegi mënutul nekk ndax tey boo xasee def ndax Aziz Ndiaye suñu papa mooy am lu mu wax gars yi bu dikkee critiqué ah kon mënutul nekk ndax tey ji doon na génn pour wax idée bu rafet gars yi jàpp na day saboté day wax kon kay léegi bu ko keneen waxoon wala keneen yor ko dañ naan dafa soxor loolu la ñuy wax rek mais Aziz Ndiaye du mu waxee noonu lu mën a waxee daa bëggoon làmb gën a am fleur waaw ndax nit boo yoree dara dañ la si yor fay ndax nga dégg ñu bëri jàpp ne waxeewul ci làmb mais ci côté mbërëm moo tax muy wax muy Balla Gaye de parce que moo ko tëgg te gëm na ni Balla day daan Tapha te moo tax mu teg couronne des empereurs. non diggante Père Aïssa Balla Gaye moom. sama maa ngi koy nuyu bu baax Balla Gaye de loolu mbërëm moo war a bëre moo tax mu wax loolu. Balla Gaye de maa ngi koy nuyu bu baax a baax comme li ma la rek ay daxaa yéene mais keneen mun na ko wax ku bokk te Aïssa mais comme que yàlla si ay loxo jaar la mu tudd ko fa mu wax ko. kon man jàppee moo ko dara dama jàpp ni daa yéen a Balla Gaye te Balla Gaye sax même bu nekk même bu ay waxu loolu sax day doon roi des arènes si kàttanu yàlla waaw noonu la demee rek mais gars yi moom mooy loolu gars yi dañuy jël wax tuuti ñu yokk ba si kaw waaw mais Balla Gaye moom ñàkkul dara waaw ndax li tafaati ne kii yi nii mërloo yi nii koo waxoon dina yor roi des arènes gars yi suuf ñoo ko ëpp waaw mu ñëw téye tey roi des arènes kon loolu problème waaw. jaajëf kàddu fi dajale tey. ñun liiru lañ am ndax bu ñuy bëree dinañ yóbbu si ay nit may ñu xaalis dinañu boole ay nit dina ñëw làmb ja fecceel ñu kafal ñun foo ñu réewandoo ñun kon ñun dañ koy yéenewaat rek waaw géej bépp nañ nekk benn manko xàccandoo dóorandoo. waaw di nuyu ñëpp nag géej géejuwaay bi su ma nee géejuwaay bàyyiwuma kenn waaw di nuyu suñu waa dëkk waa waalo waa jaame naa Rosso Dagana Mbaan Degle Foos xam nga Séer Rosso Sénégal gaaya gaaya bu ndaw gaaya bu mag ñëpp nuyu naa leen di siyaar ñëpp nuyu euh, Pape Mama Fall ndaw Keba Kanté Modou Gueye Fara Ndaw Alaaji Fall Ndongolo Adu Mbaw sama bàjjen Anta Der